Euh, jërëjëf monsieur le président de l'Assemblée nationale madame la ministre de affaires étrangères maa ngi lay nuyu di nuyu sama collègue député yi di sant yàlla bu baax euh, di sant si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di ñaan sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa de Murid sëriñ Touba yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem taalibe yi madame la ministre tey da nga ñëw indi fii ay ñetti procédure lu am solo ba ñeent yoo xamante ni ay ratification yoo xam dañ ko war a def loo xamante nii président de la république daf ko ratifié woon ak ay nattangoom ñu di ko rafetlu parce que ku ne xam na ni assemblée nationale bëriwut lu ñuy wootee à unanimité benn ay procédure loi mais bu ñu ko defee rek c'est un républicain dikk na boo xamante ni day na ni lépp lu ñu ratifié ci bitim réew bu fii ci suñu assemblée nationale war nañ ko jëmmal sagal Sénégal madame la ministre euh, fi may tàmbale samay kàddu sànq yaa ngi excuse sa collègue ministre bi nga xamante ni moom moo dem présider le conseil département te maa ngi dégg si président de la république mu waxoon ni même conseil des ministres bu amee bàyyi leen conseil des ministres ngeen dem assemblée national conseil département am na bureau bu fa nekkul président premier vice président maa nga fa kon waroon na ñëw teew pour gën a jox Sénégal yi nekk bitim ñu war koo laaj ci jafe-jafe yi am si consul comme que moo nekk interlocuteur direct ci tëj gi tëj consulat yi ak situation ba fa am lan moo si xalaatam mais warul jóge fii dem di affaire politique boo xamante ni amul benn njariñ kon loolu il faut que ñu wax ko ko te xam ne naqar na assemblée nationale naqar nañu parce que nag dañoo war respecter député yi. madame la ministre man patriote la sëñ Tubaay sama maam mais est-ce que jaral na ma yàq assemblée ma yàq université non man patriote la sëñ Tubaay sama maam mais est-ce que jaral yàq euh, li nga xamante ne mooy consulat yi non man patriote laa mais réew mi laa gëm képp ku gëm sa réew c'est une patriote madame la ministre réew mi dañ ko war a waxtaane réew mi dañ ko war a toog pencoo ko réew mi dañ ko war a defar parce que nag réew mi kenn moomu ko te madame la ministre li mu gën a naqari situation réew mi en tant que le président seulement de l'extérieur tey diaspora bi yàq na image Sénégal ci loo xamante ni kenn xamul lu mu doon mais est-ce que si nit koo xamante yaa ngi dëkk sa réew madame la ministre boo demee consulat Milan nga dem New York nga dem Paris mais kooku képp koo xam patriote nga ngay sénégalais nga gëm sa réew jëf jooju da ko war a ñaawlu naqarlu ko parce que man mi wax sama doom bi ngi état yi war a ñëw tabaski si mënut a ñëw parce que tëj nañ bi mais ñi ko def tooñ nan ma samay taalibe ñu ngi fa bëgg a màggal si ñu tëj consulat bi mais ñu ko def kaw nan la mais loolu du xeexu combat c'est une affaire loolu que loolu ku ko def da nga rey nit am na ñoo fa ay kayit bëgg renouveler mënuñoo renouveler seen i kayit loolu ku ko condamné wut c'est un assassin maa ngi ñaaw loolu di ko naqarlu di ko ñaawlu sëñ Mamadou Sy Mourtala mi ngi état fi may wax yow nii di def maanaam le huit juin ñu ngi war dem étation le vingt huit juillet pour sa Bamba Day bi mais ñu jël di yàq consulat yi mais yow lan ngeen si pare pour def loolu parce que ñu nekk bitim réew di ñaax sénégalais yi ñuy taal réew mi est ce que pare ngeen pour jëmale leen teg leen si yoon waa wala déet parce que loolu dafa jaar ni jël nga consulat yooyu noonu ku ne xam na ni fii ak cinq mois consulat du ubbi mais est ce que du am impact si da élection yi ñëw te boo ubbiwul

damaa bëgg ñu sàmm Touba sàmm kilifay diine yi te yam suñu politique politique c'est politique tëj nañ fi Karim Wade tëj nañ fi Khalifa Sall tëj nañ ma fi tëj nañ fi ku nekk mais lii amul foon kon bëgg naa ñu xam Sénégal ñëpp ñoo ko bokk ñu waxtaan si daal ak jàmm bi nga xamante ne proposé dialogue bi jàll na article cinquante cinq article vingt neuf et trente rek code électoral bi ñu sens ko ñu bëgg a bokk bokk ku yoon tere nga bañ a bokk te bañ a taal réew bi Ibrahima Diop. Bonjour à tout le monde. Donc, Madame la ministre, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le projet. Sinon, par rapport au projet de la numéro 8 2023, je demande vraiment à qu'on le retire et qu'on le revoie parce que on nous a donné un mauvais document, pas le bon document, j'allais dire, parce que nous, nous avons travaillé sur euh, l'entraide judiciaire et juridique en matière pénale. Euh, au-delà, Madame le ministre, euh, je vais vous écouter. Je vais vous écouter parler. Euh, je n'attends jamais vos sorties ni vos émissions, que vous ne ratiez jamais d'ailleurs. Je vous suivi lors d'une émission où on vous demandait Vous êtes vraiment un révolté, Madame Aïssata Sassal Non, non, non, Et vous répondez non, non. Vous savez, Je ne me révolte pas. Je me révolte rarement d'ailleurs. Mais quand j'ai mes je les dis. Et c'est ça la noblesse de la politique. C'est d'éviter le jeu cachotier, de tout mettre sur la table, là où on doit le mettre et d'en discuter. Et de tirer les conclusions et les postures qu'il faut. Maintenant, toujours c'est vos propos, Maintenant, si révolter c'est dire la vérité, j'en suis une. Si être révolté, c'est d'être patriote, de soutenir son pays, quel puisse être loin de ses intérêts personnels et propres. Être révolté, c'est être patriote, c'est être véridique, et j'en suis fier. Et ici, dans cette salle aussi, vous disiez en ces termes, la démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le, règle du nombre. Mais le nombre, c'est plusieurs hommes, vous l'aviez dit. mais le consensus, ce n'est pas, ce n'est que des grands hommes. Pouvez-vous nous dire à, au président Macky d'être un grand homme par rapport à cette situation-là Et en tant que représentant du peuple, relation de cause à effet, je suis en colère en même temps que ce peuple-là, causé par les violations de la Constitution, violations de nos droits et libertés, traque injustifiée d'opposants, M. Karim Wad, M. Khalifa Sall et aujourd'hui M. Ousmane Sonko. J'ai quelques questions pour vous, Madame la Ministre. Considérez-vous que je suis un terroriste Moi, je sais que Babou Moussa Khaltadou, maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaaree àjjana moom ba may def sama thèse doctorat bàyyi na ay yitteem yëpp ñëw soutenir ma kon nag mënu ma fi defee sama àdduna yëpp defee bu nekk li ma doon tey ñu may considéré comme un terroriste alors que je sortais entre quatre murs uniquement pour servir mon pays je ne suis pas un terroriste te que ñu ma accompagné ñëpp di ànd ak man ci sur le projet de PASTEF ne sont pas des terroristes nous voulons du bien pour ce pays-là avons-nous pas le droit d'être de révolter devant l'injustice je vous pose ces questions parce la coercion du fameux livre blanc de Benno. Je pense qu'il est extrêmement dangereux de crier au loup après avoir introduit lui-même le loup. Ce qui s'est passé à deux jours simples, la liquidation judiciaire de Ousmane Sonko et la volonté de troisième candidature illégale de Macky Sall. Chassons tous raison gardée, Madame la Ministre, et je suis persuadé que vous êtes une femme d'État. capable de noblesse et de grandeur merci beaucoup. merci chers collègues la l'article. vous avez la parole.